sayyidina Muhammadin sallallahu wa taali wa taali fii si xalaaya baatin wa xadan muqaddama isal mamaasiru wa taali taali fii ci wax fii si xalaaya jombenn neen la xadan ci lu dog muqaddaman isan booba mamaasiru aji xamalaa taali ci yàqu taali ak muqaddam nag waxi mantiq la maanaam waxi mantiq la mooy bu duwul woon nangam kon nangam bu duwul woon nangam kon nangam bu dóoral nangam bi moom mooy mooy muqaddam kon nangam mooy taali mooy nag boo ko seetlu bu ci benn bu dóoral nangam wax ñu yàqu la ndax nangam la kon nangam kon nangam yooyu yëpp la waaw ma tax ba taali taali fii tiital xalaaya jëm benn jumle yi baatin ay yàqu la xalan ci la dog muqaddaman muqaddam isan booba mu maa sin aji xemale ak taali ci yàqu Mm. la ko waan bindee seen nafsa seen bopp loolu wax du xaqu la bindee soo seen bopp directement mm. kon daje à travers ak xema waruwaan ak nang mm. wax ju xaqu nga ndax yooyu dañ duñ dajee xam nga lii mooy muqaddam li nga wax bu fekkoon nangam la kon nangam bu fekkoon nangam la ji nag lu yàqu wax ju yàqu ndax dugg ko kon nangam ji wax ju yàqu ndax lii amul lala ku bi nekk ne alxidama was wa de melo sama borom su fekkoon jiitu du meloom mm-hmm. wax ji waxoo ko ndax jiitu meloom la lasima ah. ah. kon war bu dee soo sosu mm-hmm. wax ji waxoo ko ndax sama borom sosuwul mm-hmm. taali laa am kanal fanaaw lant fa xidam laa am kanal bu jàppandoon alfanaaw jeex wax ji waxoo ko ndax jeex jàppandiwul ci yàlla lant fa ko alxidama jiitu wax ji waxoo ko ndax jiitu mënta daa ko law maasala bu xemoon alxaqa binde bi mm. wax a xungu ndax suma borom xemoon binde bi mm. inaa dama kon wax dootoo sosu mm. wax jaa xungu ndax suma sosu suma borom mën da nekk law mela doy wax jaa xungu ndax war nañu xeel ko in saxal kon ma aajo aajo wut kon wax jaa xungu laa doon yokkum bu nekkul woon bi waaye dina kenn mm. Mm. waa ju nga ndax kenn la ma mm. lama xadar kon man waa ju ndax man na laa doon yokkum hajjan muridan haaliman wa xaadiran lama da ko am xam-xam da ko am coo borom nekk na ba nëpp ma ne kan doo gis mbindeef wax jàqoo nga ndax yaa ngi jëm yi bu ci law law mooy mooy mooy muqaddam lam cay teg da ko ko tontoo mooy taal من الحدث الإنسان الأول beneen boobu law la yëkkun alxidaf ñaare googu la am kana fanaaw ñett googu la maat la xalqa ñeent googu la jiba la mu bi waaye dina maa xalal juróom benn la mu yëkkun mu dida xaali maa xaali dana maa laaj ma yëpp mu mel ni boo boo ci boo ci demaatee bi dafay bu cëpp juróom benn بينكم لو لم يكن قصدا وصفا والتي لا أمكن فناه لما أسلم قرر لم يجب سخنا لم يكن بعيد لما قرر لم يكن هذا مريدا عالما بحق ومن يبقى سيرا من يجب مراد لو لو لو إياك وجه الله ياك la ci topp loolu wax ju yàqu la dama ko tontoo wax ju yàqu la mm. su ko defee nag law ji moo tudd moo tudd moo tudd muqaddam ci waxi waaye waxi mantiq la mm. boo demoon ci saa bi da danaa la waxal ne sëñ bi loo mm. mel ni li wolof di wax bagaan bu rembe bu rembatee tuuru moo ci nekk waaye moom su fàtte ne gune la doon waxaat koo xam ne jàngul mëntëx ku jàngul mëntëx mën na gën a xam mu xadam ak taani waaye gannaaw xam ne bu ko waxaatee nga xam ko la la yokku la wataayu taali fii ci xalaa jëm benn juule yi bàyyi doon ajaaxul xaram si doon rek mu xadam mu xadam isan booba mu maa si ma laak taali ci yàqu hmm. wasamu wasamu wal basir wal kalaam bi lax kamaa di turaamu wasamu dégg wal basir ak gis wal kalaam ak wax turaamu dina sàkku seen lay bi naqal ci toxal moom doo doo ko layee naan bu duudoon nangam kon nangam bu duudoon nangam kon nangam ndax li nga xam ne wax mooy bu déggu doon luwu ñu ah téere bi da déggu te luwul hmm? ah, bu déggu doon tax ñu téere bi da déggu te taxul bu waxu doon bu fekkoon moom doon wax kon mu luwu ñu téere bi da waxut te luwul bu néew doon da gis kon mu gumbo ñooy te ji su tukkumbu moo tax yooyu nga layee xel da nga koy layee alquran mooy dégg ak gis mooy woo suma la layee dégg ak gis wax liñ Musaa takliiman comme ni ku ko jàngoon ci ilam rajo yi tey yi yëpp da ko layee si xel xam sax moo la koy wan ba mu leer ak yow leer ak na ma sa na boo sama dégg wala basiru ak gis wala kalaam ak ak wax tolaa bu doon saaku seen lay bi naqal ci toxal toxal lañ leen a layee mooy toxal mooy nga ne alxuraan wax nangam mm. ma kamaal yi ànd ak matam ci xel waaye nag man mm. nga koy matal it ci xel man mm. ko koy laye layu xel itam nag waaye boobu moom fa ci fay topp ci layu layu layu alxuraan bi li mooy su fekkee su ma mën a nekk doon di dégg kon mu manqué te jombane ci moom manqué su nekk doon di gis kon mu manqué te jombane ci moom manqué su nekk doon di wax kon mu manqué te jombane ma ne wasamu dégg wala ba ak waaye kalaam ak waa ñett yooyu tawaamu delu seen lay bi na xel ci toxal mooy waxee alquran ma kamaal ma kamaal yi ànd ak matam ci xel nag su ko dee nga su ko layee xel hmm. law taala mumkinin aw wajaba qalbal xaqaa'iqil suuman aw jaba law taala aw jaba law taala bu jombon mumkinin def mi aw jaba wala dafa loo xam def mi néew la bu ko neexee dem bu ko neexee ba jaayil la mm. muy la layal nag lu tax ma ne jaayil la mm. layu taala bu jomboon moom ko doon def milieu mm. aw jaba mu war aw jaba kon mu waral xal ba xaaya soppi ko dëgg-dëgg du doon ci lu war mu jël daal moom jaayil rek la mën a doon waaye bu nekkoon waa ji mu téye rek kon da biiram dana soppeeku te dëgg yajibu daa war liir si ñi ay yonent yi ak kiraam ñi dafay tedd ak sequ dëgg ab yonent lu mu wax dëgg la te ah, amaanatul ak kóolëre yéen ab yonent lu xuri mukk du def la xaraam du def ñu sib te bi xoom jotal seen ko dina mu war war na ci ñoom ma am réew bi tabliq yi lépp lu leen sant ñu jotal ko rek dañ ko dañ ko jotal maa lu ne kasi wal man hiyu kaa dimi tabliq yaa sa kiyu yett yi seen sabaan jomb na moom lay indi na alkadibu fen maa lu jombale muy sibaanam dëgg wal man yi ak dëgg yi ñu tere jombale ab yonente muy xuy kaa demi tafex ni ki ñaakaa jotal ci lañ leen jotal loo mooy nëbb yooyu yëpp jombale yaa sikki yoo ay xali yi